vous plaît. non mais loolu amul importance. ah non non mais attends laa la wax ni boo boo ma waxoon ban formation nga def man dinaa la expliquer lu ma def gis nga qualification professionnelle bi ñu exiger nit ñi. Mhm. centre de formation au métier porteur et la logistique moo nekk fii nii Bel Air ça a été inauguré par Macky Sall et François Hollande dangay dem nga laaj leen seen taux d'insertion nan la toll. ñoom ñoo waroon dem port léegi ñan ñoo dem port c'est que loolu laa la bëgg moo tax ñu commencé par les recrutements politiques gis nga bu fekkoon gis nga gis nga dans tous les services bu état bi nekk xam nga ne l'état ne peut recruter tous les diplômés ñu on demande pas à ce que l'État recrute tous les diplômés am na ay diplômés yoo dañuy génn ñu am seen tool ñu béy ji ko tu tu connais pas man j'en connais énormément yoo xamante ne ils font des activités qui sont non euh, laissez-moi euh, poursuivre ils ont des activités qui sont complètement à l'opposé de ñoom lu ñu jàng tàggatu ci ba am ci seen diplôme il y en a il y en a énormément mais par rapport aux diplômés qui se lèvent et qui exigent leur droit à l'emploi qui est un droit qui est garanti par la constitution ah ñooñu boo toogee nga gis que ces jeunes là ñu ngi remarqué y a des rapports et des audits qui sortent qui font état de 800 emplois fictifs mënu wax ne état bi amul xaalis pour def ay recrutement man loolu mënu ma la gëm. d'accord. alors est-ce que donc. sa question bi bëri na ay. bëri na ay vous vous trompez de